metti nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tappe di kaj kaj kaj kaj suba ngoon di saaga di xuloo. ayez le courage de la vérité au Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran ngir ragal gouvernement bi. ñu ngi leen di gërëm bu baax mbokk yi ñuy bàyyi xel ci sans limite amaan mbégte bu yaa àndaat ak yéen seen émission tribune d'actualité di ci ànd ak Pape Assane Seck taskatu xibaar nekkit analyste politique ñu fas yéene taxaw ak moom euh, ci li nga xamante ne mooy ay poñ ñeel actualité bi dinañ ñëw un euh, ci la xewoon ca. parlement bu CEDEAO ak Guy Marius Sagna ñu ngi gis sax ku mel ni euh, njiital Amnesty euh, International section Sénégal di Seydi Gassama mi koy apporter soutien euh, ca la xewoon ca parlement ba kàddu yu mu yëkkati ak it na ko ñeneen ci ay collègues député mi tontu rawatina député bu Côte d'Ivoire dina ñëw ci pàcc yooyu également gën ko faram-fàcce waaye ñëwaat ci li nga xam ne moo aju ci. Euh, situation bi nga xamante ni ñu yore réew mi moom la ñu fekk dëkk bi ka ca yooxu bu mujj euh, jàpp ni waruñoo baal benn yoon ñi nga xamante ne dañoo def détournement muy ki jiite jamono ji CDC di Fadilou euh, Keita li ko jiitu également déggoon ngeen la cay position Pape Alé Niang mi jàpp ni ak lu mënti xew solution bi mooy nañu wax sénégalais yi li am boole kook yeneen ci ay actualité yoo xam ne euh, dinañ ci euh, taxaw bokk na ci déclaration de politique générale xam ngeen ni jamono ji euh, député yi ña nga lëlu ca Saly xool ni ñuy def ba lijjanti mbir yi waaye ba fi ñu ci toll xibaar yi ñu jot mooy ni mbir yaa ngi jaar yoon te du yàgg dara daañu yegg ci indi joyante ya ca war ngir le premier ministre Ousmane Sonko mën a def lii di déclaration de politique générale bi ñuy xaar depuis booba ak léegi euh, Pape Assane Seck maa ngi laa nuyu bu wér am mbégte bu yaatu àndaat ak yow ci tribune d'actualité bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah Baye Ousmane ñu ngi laa nuyu Cissé ba baax. dafay baax na ngi sant bu baax. baa njaboot. alhamdulilah. yal na yàlla yokk barkeel kattanal. ngeen dund ba sa taat te tal ko. te lépp jik leen. naka kër gu mag. waaw saa limit alhamdulilah yal na yàlla gën ko yaatal. amiin gën ko yokk. ca kaw ba ci suuf. ka si nekk gis sa bopp bu baax. ba ba ba daal. voilà ba ba ba sans toog naan coopérative d'habitat sans limite te lépp jig yàlla na ko yàlla def barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak def jàmm ci réew mi Sénégal doxe fi nag naat nag ñëpp fekketal te lépp jig amiin min am waaw nu ngay sant waaw nu ngi góorgóorlu ah, xam nga lu tax hmm. Baye Ousmane hmm. mbir mi daxa ëpp na géej xoolal yàlla ñaata nit la sàkk ci àdduna bi ñu ne la ñu ngi ci 7 milliards yàlla sàkk nu ba nu toll sawaay no nit ñi benn waa ju tudd waa ba jiba ju tudd Bill Gates nee na yooyu àdduna bi danoo bari non faw ñu wàññi leen moom xoolal mel ni moom mooy décider <laughs> ma naan yéen kii may leen ko sunu bàyyi leen ko sunu borom rek méttiwul duñ ko ñaanal lu bon waaye ba leen ko ñooñu ñëpp sawaay ku ci nekk baa daa am loo naan am loo lekk am yàlla dafa yéeme mm. lu ni mel bu ci Sans Limites bokkee nekk ci Seneweb nekk ci keneen ak keneen nekk ci ñi ñi ñu xam ak ñi ñu xamul ñëpp yow loolu duñ ko santee sunu borom. Hmm. Pastef ngay sant. mu ngi dox ndànk. waaw dox fa mu toll. fa mu toll ca âge ba mu toll. Hmm. mu ngi see dox. say convention mbaa dakk ko. amagunu convention sax nag ba muy dakk juddu bees la de da fi ni kay da day dem ndànk. Eh. di dox ndànk te loolu la ma gëm nag na dox ndànk rek. Hmm. mettiwul. saay y trois ans. 4 ans 5 ans 6 ans on ne parlait de ça limite. c'est vrai tey on en parle kii. borom bi moo tax ku wàkkeelu si moom yow ñaata émission matinale am ci dëkk bi <laughs> yow saa limite boo dee matinale télé yëpp wàcc matinale yëpp saa limite nekk ci kaw yàlla loolu de àdduna te ka si nekk nag moment ba nga ca tolloo gàddu la la borom bi jox. Mm. doyloo ko ñaan mu yokk nga gis ci sa bopp keneen gis ci boppam keneen keneen. TFM ngaa doxal Walf ngaa doxal 2S ngaa doxal RTS ngaa doxal. Hmm. keneen a keneen sans limite ngay doxal. Hmm. boo demee tey ba les télé traditionnelles. Hmm. di di di di bàyyi xel sans limite. ña fa nekk nekk ci ay tele yu mag di la woo téléphone di woo Pape Ousmane ak keneen ak keneen naan vraiment mais mais bu faites un bon boulot <laughs> ah ci ñenn ñi am ñeneen ñoo xam daal ne non non nekkawu leen fi lu xalamal nguur gu bees gi. <laughs> ba ndokk yàlla. yàlla na yàlla yokk mais convention yi noo gisee c'est vrai nee nga yaa ngi soog a tàmbali jotoo ci mais bu mel ni LONASE gis nga la mu xëy ba euh, euh, mooy dakkal daal convention yi dox ci digganteem ak presse bi oui. Euh, pour yéeraat la wala pour xool ñeneen ñi ñu ko jox ndax mérito nañ ko am déet coow lu bëri na ci. alors Baye Ousmane. waaw. dana la wax leen. mooy. képp ku yor structure de média di liggéey am link ak les services de communication dédiés ça et là sañ ngaa mën a collaborer ak ñoom bu dee convention de collaboration seq ngeen war ngeen ko mën a seq ndax lan ñooñ dañoo yor budget de communication di fësal wala bëgg a fësal li ñoo liggéey sans limite war na mën a signer convention ak LONASE ak Sedima ak ak Primature ak keneen ak keneen parce que loolu la ñooñ dañoo yor ay budget de communication dédié à maintenant sans limite yow duñu la jox budget de communication ngay saaga doomu jàmbur déedéet yow yow yow waruñu laa fay pour saaga yow daal tànk yaa ngi saaga saaga yaa ngi neex rek ñu joxaat la convention loolu dafa dakk du dëgg du yoon. Hmm. tout le mal est là le mal n'est pas en le fait que des gens ont eu des conventions non kuy liggéey am convention boo boo ko waree am ci boo ko waree am est-ce que jaar na yoon pour ñenn ñi c'est à voir question la mais. kay joxe nag moo di problème bi lu tax muy ah. joxe lu tax joxul ñeneen ñi doon wax ne d'accord ñu ak moom nguur gi ah. fa problème bi nekk nguur gu bees nag bu ñëwee di évaluer gis ne loolu yépp ca ña xam la xew ça nous aurait coûté neuf cent millions vis-à-vis de ñañ ko doon defloo loog ñañ ko doon exploité ak nangam ak nangam ba nguur gu bees gi mu ngi def liggéeyam te ci dëgg la nekk. oui nu muy def ba du. n'empêche mel na yow n'empêche ñooñu ñëpp ku ci nekk ci yoon. yooyu nga jot convention. nguur gi tamit mun naa ñëw ne man kat bañ ca tolloo yéen liggéey bi ngeen doon def salte na ñaaw na du ma leen jox convention moom tamit libre na ci lool libre na ca. lii fi nekk kii libre na am na droit ñu yokk convention kii joxe itam libre na bañ ko kaa jox ndax newul ci dëgg wala mu ngi ci dëgg su nekkee ci dëgg ma jox ko newul ci dëgg kon du ma ko jox ku ci nekk am nga droit. oui parce que tout le temps dañ lay dégg ah, ngay wax presse bi seeni rendu ah ci li ngeen ne génn leen ci. Mm. train bi bàyyi na leen fi. Mm. nangam ak nangam. Mm. dafa bokkoon ci yi nga doon alerte wala yi ya nga euh, bokkoon benn affaire am na xam nga fi mu nekk nii su ma nee woy lii bokkoon na ci li tax ma doon alerte mooy li gën a yomb la vérité est bi ñu doon wax justement lii lañ doon bañ ak ah. leneen ak leneen ak leneen am na yeneen yu war a génn dañ doon éviter xam nga xam nga Pape Ousmane hmm. dëgg moo la dëgg mu yéex mu gaaw mooy mujj mooy nekk la finalité des choses tey ji nii si sans limite marche c'est parce que daa nekk ci dëgg boo newul ci dëgg gars yi dañ la fiy teg les populations regardent qui maintenant regardent quand c'est droit dans les bottes de ce qu'on appelle la vérité su ngeen si nekkul ba les gens ok sa mbokk yow parce que da nga dafa nekk sa mbokk wala yaa ngi koy defal affaire dana la seetaan mais dina xam newoo ci dëgg. Hmm. mu am benn moment boo xam nag c'est la sélection naturelle daf la fay teg aujourd'hui Pape Ousmane ana ñi doon defaan nguur gi fi nekkoon. ñoom bu ñu nekkoon ci dëgg nguur gi fi nekkoon du daanu du daanu mais parce que déwénu woon ci dëgg. 2021 à 2023 jàpp 2024 Pape Ousmane. Hmm. mais ô combien l'information a été dévoyée et désagrégée jamais les gens n'ont eu à tenir des propos sincères yoo xam ni doon na mën a dimbali sax nguur gi fi nekkoon soo toogee tey bañ lay wax tous ces scandales ça et là. c'est parce que dañoo nelaw te man l pour man nelaw la ak sàggan. parce que war nga mën a xam ni mu yéex mu gaaw saa yi reddition de compte dana am vérification dana am ak loolu ak loolu ak loolu pour se rendre compte que ndekete lii ak lii moo waraloon lii mais di encaisser pour ay saaga loolu dafa ñaaw loolu rafetul. te looloo am. ci gis-gis loolu la ñu wan Pape Ousmane Ousmane ko ana journaliste yi ko doon jiiñ ne moo def bu ngeen demee ba justice bi nga xam ni moo ànd nguur gi mënul wane ni moo def. dañu waxante dëgg rek yàlla tax. Mm. te bi loolu amee lu tax lu est-ce que cette presse là a continué wala s'est arrêtée de désinformer et de dire réellement ah finalement donc li ñu ko ji amul daal di jëlaat position beneen sax ñu mën a comprendre mais soo sont restés dans la même manipulation certains boo defee loolu nag ba ànd ak nguur gi daanu wala ba nguur gi daanu mais da ngay nërmelu ak moom. te mooy feeñ yi nga doon bañ. Ah, nga ni yeneen dana feeñ yooyu juñu noonu parce que jamono ji bëri na Pape que jotul li euh, Baye Alé wax ñu jëfee ko mooy li mu wax ne nañ ko leeral que en fait Pape il s'est passé tellement de mauvaises choses yoo xam wax ne lii moo fi am dañ leen a dénk foo ñu ne ah li nga ñu dénk kat wax dëgg yàlla li nga ñu jox lool de sac bi nga ma jox ne ma xool lii ak lii moo ci ne pas téye sac bi rek na pat te yaakaaruma ne dañ na pat ils sont en train de faire un boulot méticuleux et minutieux malheureusement il faut pas que mu mu mu attente bi la sant moo tax dañoo ñaan sunu baay bi Ousmane Diagne le ministre de la justice mu leeral ñu en attendant peut-être déclaration de politique générale parce que doon na baax moom su génnoon leeral. ministre de la justice mais parce que ñàkkul ay dossiers yu mu yor en attendant su génnoon nañu je vais faire part de. papa baal ma rek ma waxee ko nii. amaana nag moom réalité bi moo ko moo ko gën a xam. Hmm. li tax defu ko ou jusqu'ici defu ko mais amaana dina ko def itam parce que génnoon na pour tënk.